Dalen ak jam mbok internet yi safo di seetaan Buzz M TV mbok yi conseil constitutionnel fa la ñuy delu nak lu jëm si mbirum saytu parrainage yi nga xamne nak candidat yi daal di nañ ko fay doxal ki nga xamne nak modi di Bassirou Diomaye mi nak nga xamne candidat am soxalo na lu bare bare bare si sénégalais yi ak patriote yi top ki di président Ousmane Sonko mom Bassirou jomay fay nak daal di nay valider 40000 douze parrains yoo xam ne daal na koy am fële sa conseil constitutionnel gannaaw ba nga xamee ne daal dinay daal di dañuy càmbar ab dossier waaye nag dafa am li nga xam ne moo di six mille six cent neuf doublons externe yoo xamante bi nii daal jaarul yoon kon moom mi di Bassirou Diomaye fay euh, dafay mottali quarante deux mille dix neuf parrains yoo xam ne il faut mu daal di koy valider fan la ko war a valider nag si juróom-ñaari raison yoo xam ne daal war na ko faa mottali moom Bassirou Diomaye Faye mu nekk nag mbiir moo xam ne sénégalais yi ñu ko gisee mooy que ne nag dafa mel ni dafa xaw a luus si gis-gis nu lenn si sénégalais yi fu kii nga xam ne moo di Anta Babacar Ngom matale ay parrain daal di jàll defis kii di Bassirou Diomaye Faye moom moo waxuma la d'office nag waaye lu raw defis dafa fa war a jàllee lu ni mel daal la ñu saytu fale sa conseil constitutionnel moom Bassirou Diomaye Faye jàll na waaye nag dafa am na doublon externe doublon externe nag boo ko déggee te xamoo ko nag mooy que ne nag daf nit ki dafay ñëw daal di lay parrainer ba pare mu nekk ñaari parrain wala tamit doublon externe comme ñu parrainer la ba pare ndekete yow moom ki ki nga xam ne dafa la parrainer moom parrainer na ñaari candidat yoo xam ne bokkuñu wala mu parrainer la ñaari yoon lu ne mel nag moo waral ngeen di dégg doublon externe ak doublon interne ba tey dañuy continuer ba léegi ki nga xam ne moo di maam Boye Diao Mame Boye Diao nag moom it dafay dellu si gannaaw bu mu amee trente deux mille deux cent soixante dix huit euh, si ay parrains yoo xam ne daal di nay baax la waaye nag dafay mottali onze mille neuf cent parrains yoo xam ne moom mii di Mame Boye Diao war na koo daal di mottali kon ba léegi moom it tamit dafay ñëwaat euh, deuxième tour mën nañ ne comme ki nga xam ne nag moo di Bassirou Diomaye fay daa ngeen jëf ñu ngi leen toppal euh, information yi fële si conseil constitutionnel ba léegi.